dëkk ak moom ak yéen ñi jóge fu ne ñëw ngir màggal si ku xool ci moom rek nu la ndox mi def rek danga ko mën a muñ ngir moom na ndox ma daa def ca foofe juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer yoo xam ne taw bépp ci kawam lay sottiku mu di ko muñ ngelaw ak taw ak melax ak i dënnu lépp ci biti la koy fekk mbaaram ma di daanu mu di ko defaraat léeg-léeg mu ne ci keru garab muy taw doom fu mu dugg kenn du ko toggal kenn du ko fóotal kenn du ko baleel te loolu lépp kat ba mu koy daj suñ jëmm yi rek a tax am na bis moos am koo xam ne yoonam ne wut ci fi yi waaye da koo xool bu mënu ko muñ mu ne ko ñëwul fii sama waañ wi maa bal la ko ba bët set ndax taw bu metti ak coono yu metti sëñ bi bale waañ wa teg fay téereem fanaane julli ba bët set mu door a génnaat kookee loole moo ko defal rek teg nañ ko ci ay weer kon mësuñoo nang ko defal dara ak ku ko dimbale lu ne dañ na ko lu ne def nañ ko ko mu muñ lépp rek te suñ jëm yi rek a tax kon nag lu mën a xew rek nañ gën a góorgóorlu te gën a muñ te xam ne moom jar na ko ndax jaral jaraloon nañ ko lool yi kon nag noo ngi leen di bu baax ci taw bi metti na ñu génn seeni kër ñi seeni bagaas bagage yàqu ñi seeni i dund yàqu waaye loolu lépp nañ ko muñ ci sëñ Tuubaa tax te xool ci sëriñ bi rek te xam ne sëriñ bi moom defal nañu lu ne te mënuñu ko fay kon nag jaral nañu lu ne yal na yàlla woyofal yëpp te fay leen te boole nu nangul sunu taalibe sëñ Tuubaa boole nu ci dëgg dëgg dëgg ay taalibeem tey natt bii nga xam ne teg na leen ko muy ndox mi mu fayee leen ci lu kawe seen jort ci fii ci àddina ak feenu jëm ëllëg ci àllaaxira